on est des alarmistes parce que liñ naan artiste yàlla da koy may muy gis lu ñëwagul su ci artiste rek nekk loo artiste quoi di prédire si vous vous souvenez en deux en 2002 bi ñuy njëkk a génne suñ premier album parce que euh, parce le premier qui devait sortir a été censuré mm-hmm. en mu ngi waroon donc on a sorti Kenn Bugul en 2002 sous Wade mais booy xool ci lañ defoon morso boobu ñu naan suñu moteuru gaal gi dafa paan kenn xamul ban garage politicien lañ koy euh, euh, lañ koy euh, réparer PS parti posonu Sénégal PDS parti pour diigal suñu gaal donc looloo nekkoon ci refrain bi Ainsi, tous les prix Nobel ont été remportés par un seul et unique président. Oui. Toi, prix Nobel de Lambar Lambari, prix Nobel. Donc ñun bi ñuy bi ñuy wax sénégalais bi ñu leen di dànkaafu ne leen politiciens yi ngeen di gis d'accord Abdoulaye Wade malgré il s'est battu vraiment il s'est battu tey jii lu ñu am ci acquis démocratique à 80 pour cent Abdoulaye Wade liggéey na ci mais quand le changement escompté bi ñu doon xaar c'était pas les gens du système te ñii c'était c'était euh, la classe politique euh, classique bii nii mhm. du ñii la Sénégal soxla pour dem d'accord ça on l'a toujours compris nous alors mais quand même il fallait faire un pas vers la démocratie c'était quoi am une première alternance au moins au moins alors